أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما mbokk jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ginnaaw loolu ñoo ngi ànd ak yéen ci allamani xabibi Mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey noo ngi jël ñaan bi ngay ñaan booy génn sa kër ida xaraja rajulu min baytihi bokk na ci li ñu sunu soppe bi jàngal muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bu nuy génn ci sunu kër ñu jàng ñaan bi mooy bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله mu ne jullit bi su waxee ñaan bi lii moo ko ciy fekk lii la ciy am mooy qaala yuqaalu hiina izin hudayt wa kufiit wa wuqiit fatanaxaa lahu shayaatiin fa yaquulu lahu shaytaanun aaxar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya sunu yonente alayhi salaatu wasalaam nee na jull bu jàngee ñaan bii ci bi muy waaj a génn këram nee na dañ koy wax ca jamono jooju mu jàngee ñaan bi yow day jubal nañ la yow day aar nañ la yow day wegal nañ la wala ñett yi lañ koy wax jubal nañ la aar nañ la te dinañ la musal ñett yi lañ lay wax su boobaa seytaane daa di ndeysaan daa di sëgg sëggal boppam xool beneen seytaane moroomam ne ko waaw waajoo xam ne jubal nañ ko aar nañ ko musal nañ ko lu ngeen mën ci moom dina dara mu nekk sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu yonent daan def gëmoon ko lool nag jàpp mu ne jullit bi day génn këram yaxrujul muslim kulla yawmin min baytihi chaque jour jullit day xëy di génn ci biir këram di doxi ay mbiram ay responsabilité yu aju ci kawam yan yi nekk mbirum dund yéen ñi nekk mbirum fàggu liggéeyi ak ay aajoom yoo xam ne ci biir këram lay delluwaat ak ay soxlaam yéen ñi nekk ay devoir yu ko war a génne nee na yéen ñi nekk ci mbirum jokk mbokk ak dox ay dëkkandoom ak ay xaritam ak liggéeyal société am kon lii moo tax nit di génn génn ci ay mbir yoo xam ne yataallaqu bihi min amalin wa masuliyat ci ay liggéey la ak ay responsabilité yenn yi tataallaqu baaduha bil maashi wal kasb ji di jublu ci sa wàllu dund ak sa wàllu fàggu alal wa xaajaatil bayt ak aaju kër gi ngay génn pour kër gi am lu fi nekk ak ay soxla ngay génn ci ay devoir yoo xamante ne soo génnul du réglé wu nga génn ci dem jokki sa mbokk génn ci ziyaara ji say dëkkandoo génn ci nuyu ji say xarit génn pour loo xamante ne société bi moo tax mu ne wa fi kulli xurujin lahu min al manzili yakunu muarradan li taamul ma at tawaif saa yoo xamante ne jullit baa ngi génn ci biir këram dana am ñeneen ñoo xamante ne ñoo ngi fi te dana daje ak ñoom te ñooñu dañoo doy waar ay nit yoo xamante ne dañoo wuute ak nit ñi ñu doy waar lañ ñu bëri ay jafe-jafe lañ ci wàllu lu nekk nag ñaay agresseur lañ ñaay sàcc lañ ñaay njabarkat lañ ñii ñii ñii ñii ñii mu ne looloo tax bokk ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi bu daan génn day def musluwaay bii ñaanal boppam day ñëw taxaw ci wetu ci buntu kër gi xool ci kaw mu ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla yombalal ko mu génn ci jàmm ñëwaat ci jàmm yàlla yombalal ko jëflante yii muy génn di jëflante ji walla lii muy uti yàlla yombalal ko ko bu mu loru bu mu ci lor kenn wala yadurru ahad wala yataarradu lid darar min ahad wala yazlimu ahad neke gis nga booy génn boo ñaanee ñaan la nga ca soxla pour yàlla defal la ko mooy bul lor kenn yow waaye bu la kenn lor waaye bu la kenn tooñ te yow doo tooñ kenn nee na mu nekk waqfa jamila taxawaay bu rafet tasrahu sadr boo xamante ne dafay yaatal xol ubbi xol bi balaa ngay teg benn tànk di génn ci biti di jëflanteeg nit ñi nga dénk sa boroom sa bopp nga gis tey nag am na ñoo xam ne bu ñuy génn ci kër yi dañuy sotti ndox ba mu fees del ñenn ñi di lal ay xobi paftan ñenn ñi di sotti ay saafara ñenn ñi di takk ay sengoor ñenn ñi di seerewaat ay ndombaaki gàllaaj te yooyu amul benn njëriñ ay bàkkaar rek nga ciy jëli bokkaale nga ciy jële ak bidaa yooyu bu fekkoon ne lu baax lañ law kaana xayran la sabaquuna ilayhi bu doon lu baax la yonent bi ak sahaaba yi jiituñu ci bu fekkoon ne rek ndox am na lu muy jëriñ boo ko sottee ci buntu kër gi wala sénégalais yi ni ñu gëmee ni bu ñu xëyee suba dañoo war a sotti ndox ci bunt yi sotti ndox ci buntu néeg sotti ndox ci buntu kër gi sotti ndox ci oto bi sotti ndox ci magasin bi laa ilaha illallah da nga gis sax waa ji bu amul ndox mu dem jëndi sotti gëm-gëm goo xam ne bu ñu gëmee woon noonu sunna yonent bi kon jàmm am ni ñu gëmee ne bu ñuy génn dañoo waroon sotti ndox ci buntu kër yi suñu gëmee woon noonu ñaan bii kon jàmm rek mooy am te xoolal ñaan bii lim ci am nga wax ko ñu ne la ku fiita hudiita wa ku fiita wa bu xiit aar nañ la jubal nañ la defal nañ la sécurité bi ngay génn ba ba ngay ñëwaat seytaane yi xoolante na lu ngeen xam ci waa joo xam ne dañ koo jubal aar ko wattu ko allahu akbar waa ndox mi ngay sotti nag lan nga ciy jële beneen bi mooy kii sotti ndox ci buntu këram wala jàpp ne ndox mun na koo musal dafa jàngul histoire rek même ci Sénégal gis nañ ay ndox ñoo ndox ñoo xam ne ndox moo leen xañ seen jàmm ndax moo leen génne seeni kër ñaata yoon lañ fi wax inondation ñaata yoon lañ fi gouvernement bi arrêté lépp di jublu ci ñi mbënn mi ñaata yoon Firawna lan fan lañ ko rey fan la faatoo ndox kon ndox amul dara ndox mënul dara ndox jaam la yàllaa ko sàkk yàlla moo mën kon jullit bi na gëm loolu mu jubal yàlla boppam mu jubal yàlla ay loxoom mu dénk yàlla boppam mu nekk waqfa jamila tashrahu sadr qabla an yuqaddima al muslim ala taamulihi ma annaas mu nekk taxawaay bu rafet bu ab jullit war a taxaw gëm ko balaa muy jëflante ak kenn di génn këram mu jàng ñaan bi wa hiya sunnatun karima min assunani nabiyina sallallahu alayhi wa sallam nee na mu nekk sunna bu tedd bu rafet bokk ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam natalaqa sunu yaay ummul muminina ummu salama radiyallahu anha jàngal ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu daan génn day ci këram dafay jàng ñaan bi nee na maa xaraja nabi sallallahu alayhi wa sallam min bayt yonent bi ne musul génn ci sama biir néeg qat illaa rafaa tarafahu ila sama lu dul dana yëkkati ay bëtam xool kaw asamaan mu daal di jàng ñaan bi allahu akbar kon mbokk yi su fekkee yonent mi yàlla yónni woon moom moo doon def lii ba sunu yaay umu salama mokkal ko ci moom te dégg nga yaay umu salama lu mu wax nee na yonent bi mësta génn ci sama biir ne xatt mukk mukk la wax mukk illaa rafaa tarafahu ila sama dul dana yëkkati ay bëtam ci kaw asamaan mu daal di jàng ñaan bi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne kaana rasul sallallahu alayhi wa sallam yuhaafizu ala al qawli haza du'a yonente bi dafa respecté woon di jàng ñaan bii di ko wax fu mu toll walam yatrukuhu qattu nee na yonente bi mus ko bàyyi kon loolu wa fi haza dalil ala ahamiyatihi wa fadlihi loolu day wane importance bu ñaan bi am ak ay ngëneel yi ci nekk nga jàng benn ñaan waa asamaan jubal la garde la wattu la musal la seytaane yi rukkoo ci sa kanam daan ne lu ngeen xam ci waa joo xam ne aar nañ ko jubal nañ ko musal nañ ko mbokk yi jot na ñu delluwaat ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam jot na ñu delluwaat ci pas-pasu salafu saaleh mooy mag ñu baax ñi liñ fi bàyyi woon jële ko ci yonent bi mooy tandiku ay bidaa mooy tandiku xërëm mooy tandiku gàllaaj ah di génn di tegi bant di rëdd ay rëdd su ma ñëwaatee mottali ko di génn di nuyoo ay loxo càmmoñ di génn di fari këriñ di génn lu ne ngay gis lu ne wallaay lu ne di génn di tibb ci suuf yooyu yëpp amul njëriñ te bokkaale la bidaa la baaxul amalul xeetu njëriñ te du la yokk benn tiyaaba imagineel ñaan bii nga wax ko nga jox yàlla confiance xam ne moom yàlla moo lay aar moom yàlla moo la mun a musal moom yàlla moo la mun a protéger ba ba ngay génn ba ba ngay ñëwaat wallahi pertul kuy ku mokkal sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku pertul dafay yokk rek ci ay ngëneel lay dund ci ay xéewal lay dund waaye ay bidaak ay gàllaaj ak seeral ma ndombo yeg xoolal doomu aadama dénk boppam ndombo ba bu génnee fàtte ndombo gi day daw del siwaat doomu aadama dénk boppam ay téere boobu takkul téere yi day dawaat delsi doomu aadama gëm ndox ba gëm ndox ba buy tëdd satala bi satala gi mu ngi ci bopp lal su yeewoo satala gi lay njëkk a jël commencé di roose balaa muy def dara roose kër gi ba mu tooy xepp te terewul kër gi jàmm nekk guddeeg bëccëg ñu ngi reyante di tojantey bopp tamante dëmm kon kay war nañoo delluwaat ci njàngale ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu yëg ne yonent bi yàllaa ko yónni lam ñu indil ci yàlla la ko jëlee wa ma aataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wu leen yonent bi indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kon mbokk yi yëg leen ne bu ngeen di génn li ngeen war a wax mooy bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu alallahi laa hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu alallahi laa hawla wala quwwata illa billah mu nekk sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ñaan boo xamante ne moom ngay ñaan jàngoon nañ semaine bële passé ñu ne bu ñuy dugg ci toilette ban tànk la ñuy jiital hmm? bu fekkee ne nag léegi kër la ñuy génn ban tànk la ñuy jiital ah ah booy génn ci kër ban tànk ngay jiital booy génn ci kër lan ngay jiital booy génn laa ci kër gi ah taqdimul yumna fi kulli makan min baabil kirama wa taqdimu simal min kulli makan min baabil muhana ah jiital tànku ndeyjoor ci place yu tedd yëpp loolu day wone importance bu ndeyjoor am waaye di jiital càmmoñ ci bépp place boo xamante ne place bu ñu sit la lu mel ni ay toilette ak yu demee noonu loolu day wone tedd di place boobu sopp nañ ab jullit suy jàpp muy raxas wala muy tiim wala muy sol yére wala muy sol dàll wala ay xuf wala yeneen ya ci aju wala muy dugg jàkk wala muy socc yooyu yëpp mu jiital lan mu jiital lan ndeyjoor buy génn ci toilette lan lay jiital buy génn ci toilette lan lay jiital ndeyjoor buy dugg lan lay jiital càmmoñ mu nga dugg kër nag wala génn kër ah lam yarid fihi dalil bi xusuusihi yadullu ala istihbaabi taqdimu ihda alqadamayni duxulan aw xurujan imaam nawawi nee na dugg ci kër wala génn ci kër amul lu ci rot ci lu ñu sopp nit def comme niñ ko waxee ci yële waaye doomu aadama bi sopp nañ buy génn mu génne tànk càmmoñ bi buy dugg mu njëkk dugal tànk ndeyjoor incha allah ñu góorgóorlu ci loolu mbokk yi jazakumullah xeyran yàlla def nangul nu nangul leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu